di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak Clédor Sène mi dikk jëli sànq këram ci Derklé ci ndakaaru euh, yóbbu ci division investigation criminelle fekkoon na booba ñu daal di woolu ku mel ni Assane Diouf gi Guy Marius Sagna euh, mbiri Ousmane Sonko bu njëkk njiit réew mi président Sall di ci àddu dara jotalewu ko mbir moomee mu ne sunuy naatangoo yu rajo France Internationale dénk lu ni mel wax na ci wàllu ñàkk gi ak na mu bëggee ci askanu Sénégal ñu dem wuy ji euh, kër docteur ci yi ñu am bac bees ñu rafetluwul ñu ne taxawaayu ministère bi ñu dénk njàng mu kawe mi kilifa gën ko dénk naka noonu Cheikh Oumar Anne mi ne woon euh, borom bac 2019 2020 yëpp orienté na leen ca ñu ne loole euh, du lu nu yëg ñoom euh, du seen kaa yooyu juróom-ñaari junni étudiant ci technique bi Abdoulaye Diop. xibaar yi bokk na ci Clédor Sène mi nu woolu sànq ca kanamu division investigation criminelle ni ko euh, avocat maître Khoureyssi Ba njorte woon deme, la demee euh, bi nu daal di xëyee bërset la ko waa division investigation criminelle jëli xamagunu lu nu ko toppee waaye njort nañ ne ab enregistrement audio bokk na ci li leen euh, jural jàpp gi ku mel ni moom ak it Assane Diouf gi Marie Sanya naka noonu président Sall addu bu njëkk mu yàbbi ci mbiri Ousmane Sonko président bu PASTEF ak li nga xamante ni mooy coowal euh, diggam ak soxna suñ naan Adji Sarr moom président Sall ci antenne RFI la xam le ni dara jotalewu ko moom mbir ñu teewlu président Macky Sall. encore une fois c'est une dama koy waxaat euh, mbir mu ñi métit lu la xawma lu ci xew euh, wante euh, sama non bi gëna mak mag yéenewuma ko situation bi légui ay tuuma am na yoon mi ngi sét mbir yi kon bu ci kenn tudd président de la république ci lu yoonam nekkul amna mbir yu ma doy sëkk liggéey lu dul nekk fi dina ci complot rawatina yu ñaawé ni. Ah, des choses aussi basses président Sall ci tekki gi Alaaji Njóogu Jeen euh, mu yem ak jamono yi wa passef ñom ne euh, biir na leen ni yëf yi ab ndëgg sërëx la complot lañu ko jappé bu nguur gu Sénégal jëmee ci seen jitt Ousmane Sonko euh, boobaak léegi ay jappé ñeel walu ko mbir momé ku ci melni Assane Diouf gi Marie Sagna wax nañ ko d'or sen sank ci ci maître Khoureychi Shiba, lañu ci déglu moom mi nga xamni ni njortoon na sax japp gi ñeel d'or sen ñom dañ leen topé dañ koy topé trouble à menace de trouble à l'ordre public manam deful dara mais menace la fay menace daal ordre public ak ak acte de manœuvre acte de manœuvre yi nga xam ni dafay compromettre la sécurité publique mooy mu ngi def li nga xam ni mën na indi jeexi jaaxa su ko indi ay problème ci institution et cetera bref moom xam nañ ko mooy le fameux article quatre-vingt bon biñ ko biñ ko entendre euh, je peux vous dire tout de suite ah wax na li muy wax et puis voilà ndax tontu na tontuwul kooku beneen problème la man bi ma génn bi may ñibbi commissaire bi ci boppam woo ma ni ma ah fàtte nga fi sa carte avocat comme ñun dañuy soxla carte bi pour mën circuler donc ma ñëwaat di jël carte bi ci la ci laa yëg ni bi depuis 20 heures japonais, nañ ko ba indi ko aussi la même chose euh, menace euh, euh, de trouble à l'ordre public et

kii yóbbu nañ ko léegi commissariat plateau mu fanaani foofu moom dañ koy jàpp dafa doon uti reer ndeysaan donc ñu toppatool ko lu mu xewaloo am lu mu mëntee yooyu moom lañ doon def ni bu toll ni ñu ngi ñibbi quoi maître Khoureychi Ba avocat san Diouf euh, ni mu ko di njorte woon ci euh, mbiri Clédor Sène noonu la demee sànq bi bët setee la takk der yi dem këram ci dexkale jël yóbbu euh, jamono yi kon mu ngi ci loxol takk der yi Sénégal fekkoon na ci guddi gi moom Clédor Sène mu def ab audio ci internet gi di Facebook ñaari junni ak juróomi téeméer ci doomu aadama doon ko suivre di ay vues mu ci doon xamle rek na mu gisee démocratie Sénégal ak deltu ginnaaw gi ñu déglu ca Salif Sow mi teewlu audio bi. Assane Diouf teg bu ko waa dig teg yoxoo ojo bi tax alkaati yi la def lu nu mel amul benn yoon boo xamante ni jalgati na yoon loolu la wax ci ba muy def live direct ci page Facebook am moom Clédor Sène. Assane Diouf bu ñu ko jàppee ci audio boo xam ne man maa ko def kay man la ñu war a jàpp ba pare parce que man euh, li may wax boobu ba tey <laughs> man maa ngi koy man kon man ci man la ñu waroon a te ñëpp xam nañu fi ma dëkk. Guy Marius Sagna tamit naka noonu waa division des investigations criminelles jàpp nañ ko jàpp yu bari yii yëpp du tax nag ñu en wala mu xoqatal leen benn yoon la wax moom Clédor Sène. parce que fii la ñuy wax ci rajo yeeg yi ñun dañuy organiser ay comité de résistance mais ñu ngi organiser jeunes yi au niveau des quartiers. ñun ñoo ko wax ñu ngi ci. am nañ ci droit. loolu bu fekkee ne dañu koy opposé jaay ñu doole rek mooy tax ñu ñu tëj ñu ci. mais loolu lu ñu yoon may la. te fépp fu ñu mënti dem yoon daf ñu ko may dañ koy def. léegi nag nañu prouver fan la ñu wootee ni dañuy taal dëkk bi wala dañuy yàq dëkk bi. loolu àgguñ ci bu kenn am ay sikki sàkk ay ragal ay arrestation ay police ay dik ay gendarmerie ay torture ay brimade ak yooyu. Clédor Sène nee na dafay dem ba jeex ngir aar démocratie ci Sénégal ndaxte ñi mu ko sekkal di waa nguur gi le ci gis-gisam ba tey moom Clédor seen dañoo tiit jàkk jaaxle ba tax fu nañu dal fa. jërëjëf Salif retour de parquet pour Patricia Gandoul Abbas Fall ñoom ñëpp euh, ke njëkk di soxna sa Biram Souley Diop euh, sëñ Abbas Fall bokk ji Pastef mom Biram Souley Diop nak nonu noonu ba ci loxol tak der yi maître Abdoulaye Tall avocat bu parti Pastef du fa gis ne yëf yi euh, du yoonay dox ci kawi euh ñom seen militant way ak càcc la di keuf gu leen prise d'otage noné la ko waxee avocat parti Pastef ne Biram Souley Diop ma ne ci flagrant délit ci ci benn dossier bi ñu déglu ko maître Abdoulaye Abdoulaye Tall ak Pape Balla Gueye. situation manifestement illicite mooy continuer ba tey parce que ñun dañoo jàpp ni euh, Pastef ñun dañoo jàpp ni. Euh, enlèvement la prise d'otage la. jàpp nañ ñoo xam ni seen yoon nekk ci yoonu Pastef ku mel ni soxna yi Birame Souleye Diop jàpp ñoo xam ne c'est parce que dañoo jege Ousmane Sonko jàpp ñoo xam ni c'est parce que si que membre cabinet lañ te amul fenn fuñ ko loolu la di ñaawlu dégg nañ ci nouvelles yu mujj am na beneen retour parquet ñu ngi am yaakaar ni suba dinañ jàkkaarloo ak juge d'instruction bi nga xam ne moom ne argument de défense dinañ ne Birame Souleye euh, euh, gis mooy dossier bi yëpp instruction la jëm amul benn bi ci dem bi nga xam ne moom lañ ko déglu moom lañ dégloo ñeneen ñi même benn dossier la même bu fekkee enquête seen seen déferment bokkul bis bi leen déféré mais ñoom ñëpp benn dossier la donc le procureur dafa dafa war a ordonner connexion bi parce que dafa am connectivité d'après ñoom ni ñu ci waxee enquête bi loolu la révélé kon benn dossier la mën nekk mën ta nekk ñaari dossier euh, mbootaay gii di front multilutte doy na ñoom daal di indi seen ak njàppale ci Ousmane Sonko danoo gis ne yëf yi ay pexey na sëxal ab adversaire politique la euh, moo waral seen janoo démb ci ngoon ak taskatu xibaar ci dalab waa FRAPP Ababacar kan la nu ci àndal secrétaire général adjoint euh, bu doy na ñu teewlu ko ak Aminata Diang le front multilitre doy na dafa constitué wu boobu ak léegi dëkk bi pratiquement lépp lu fi yëngatu c'est le front multilitre doy na moo ko yëngal boobu ak léegi bu ñuy xeex injustice gis koo xamante c'est une victime d'injustice kooku du ñu toog croiser les bras di ko seetaan ni ñuy pour béykat bi mën a jot suufam ni ñuy xeexee pour ñi nga xamante ni ñoom ñoon la ñuy toj seen ay kër loolu mën a dàkk non la ñuy xeexee contre injustice bi nga xamante ni moom la ñuy teg citoyen ma Samba citoyen ma Demba te Ousmane Sonko au-delà d'être euh, le président d'un parti c'est un citoyen sénégalais comme ni ñuy nekk ci loolu la ñuy exprimer suñu solidarité à ses côtés ci cadre boobu aussi ci la ñu ko demoon renforcer ko aussi ci ay conviction mag yépp comme ni ñuy nekkee ci

pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu waxtaanee xeex beeg jàngoroy coronavirus ak ndorteelug ñàkk gi ci Sénégal tey la kon ndorte loole euh, ci wàll woowu sax euh, njiitu réew mi président Macky Sall ci waxtaan ak RFI Radio France International àdduna ca leeral tëralin yi Sénégal ci wàllu stratégie euh, xam la it ne réew mi ubbiku na ci ñëpp ngir jotin wi ñeeli vaccin ngir ñàkk askanam ngir muccal ko ci coronavirus ñu déglu président Macky Sall. Depuis la découverte des vaccins, nous nous sommes évertués. Euh, depuis binyaki ñàkk yi feeñee ñi ngi liggéey euh, ci biir euh, COVAX waaye li ñu mujj seetlu di ne réew yu am doole yi ñoom commencé woon nañ di am te COVAX mars ñàkk yu yu COVAX dinañ yegg ci suñu réew yi en tant que président de la république mënu ma woon toog rek di xaar li def nag waxtaan ak ay réew yo xamante ne vaccin naka non tam usine yu mag yi nga xamante ne ñooy liggéey ci walum pharmacie ci nonu la waxé que euh, waa Chine ba am euh, ay ñak euh, Sinopharm lolu nak jaarale ko nak ci ndimbalu président bu Chine di Xi Jinping wax tamit ak wa Russie ak président Poutine ñi ngi waxtaan ngir xol nak lañu amé tamit vaccin bi di Sputnik V ak tamit yeneen ni ñàkk lu ci melni sax Johnson and Johnson kon du mbirum idéologie. président Sall ak waa RFI lu jëm ci euh, ñàkk meeg cëddale euh, mi ñeel diwaan yi Sénégal fukk ci fukk ak ñeenti diwaan yi ci Sénégal jot nañu seen i ñàkk xibaar la tukkee ci soxna Annette Seck Ndiaye mooy directrice bu pharmacie euh, nationale d'approvisionnement ñu teewlu ko xaj Ndate Diop. distribution boobu nag tàmbali nañ ko samedi. te bu soobee yàlla région bu nekk ak liñ la jagleel pharmacie nationale d'approvisionnement dina la ko indil.

yore wuñu ay denrées alimentaires ay vaccin la ñu yore suñu ñëwee ci région yi gannaaw buñ ko jaglelee autorités yëpp a nekk ndax c'est une campagne assez spéciale suñu ko jaglelee autorités yi muy médecin chef de région bi ak gouverneur bi dañu koy dugal aussi ci chambre froide yi nga xam ne euh, foofu la war a nekk. docteur Annette sekk Ndiaye di njiital euh, pharmacie euh, nationale d'approvisionnement di kër gi nga xamante ni ñoo yor denc nag delem ñakki euh, xeex corona ci ci Sénégal ñu waxtaane leneen di njàng meeg tolluwaayam njàng mu kawe mi lu jege daanaka juróom-ñaari junni borom yi bac bees di juróom benn di junni kon ak juróom-ñetti téeméer euh, ci ñoom ñoo yëglu ginnaaw bi ñu amee seen bac ginnaaw ba kilifa gi ñu dénk njàng mu kawe mi xam leen ni ñëpp ñi amoon bac 2019 2020 daañu leen orienté ñoom dañuy yëglu ndax demee wu ni ci ñoom ba tey ji France daal di xiideen moo waral seen conférence de presse démb ci seen kàddu Souleymane Diouf su fekkente maanaam dañoo boole ñaari yëpp mille trois cent quarante moom la mille yoo xam maanaam kenn laalu gu leen parce que bu fekkee ne moom dafa lank bañ ñu orienté ba par taxaw bu neexee suñu borom comme lépp luñ ci jar bu parce que droit la comme ñëpp xam ñu ñu dem jàng léegi nag à chaque fois mu ngi conscientiser population sénégal bi ne de voilà orienté naa xale ñi nga xam def nañ seen demande parce que ñun mënuñ fii concevoir à ñu rencontré ay difficultés boo à deux mille ab bachelier kenn euh, ko xam ne jàng na jamono bii nii yooyu yëpp dafa ànd xam ne preuve yi leer ne ñoom ñi xam ne dañoo def xam ne kenn kenn xam ne kenn ku xam ne dañu am bac arabe euh, am ñu war la orienté euh, wax dafa leer mooy duñ leen orienté parce que yëpp dañoo xeer lañ gën di wax parce euh, bokk ci étudiants yi nga xamante ni ñoo yëglu ndax ñàkk orienté jëmee ci ñoom ngir euh, atam njàng mi euh, di bu ren ñu déglu woon ko moom Souleymane Diouf ci micro ba bi di stagiaire fii ci RFM <laughs> ñu dëkkee ci Mbëbës ak li sant yàlla bay pooj daanaka ndax ci wàllu kaaraange dañ fa masa ami njàqare ci ay agresseur yu ni mel donte gendarmerie weekend bi teg na ca loxo yenn ci ñu daa def ñaaw ñaawteef yooyee waaye waa gox bi di Samba Dem ñom ñëpp euh, danaka seen fit euh, da mësoon dem euh, ci walu ñakum karangi goge ci dara warlu ko lu may seen bu ya ba fa mbëbës gi nga xamante ni ne fa ñom reportage ndongo ka bawol doon benn ci ñetti site yu décharge bu mbëbës te récupérateur yi di liggéey bawol nak mo seus rek ci quartier Samba Dem bu zone de recasement te borom sareet yi di jaar sa su ne ngir mëna dugg biir mbëbës fii nag la gendarmerie bu Kër Massar Baye Fall ak ay moroomi alkaateem daal di teg loxo ñeent ci ay defkatu ñaawteef ni ki week-end bii nu génn Baye Fall mooy délégué de quartier bi commandant Kër Massar bi ñu ngi koy jaajëfal jàmbaar la band buñ ci dàq nag mbëbës fi lañuy yéeg ñoom band yi fi lañuy yéeg ñenn ñi nag dañ ciy jaay yàmba Mohamed Diallo dëkk ci gox bi moom nag la agresseur yi daal dee mujjee agressé lu nu mel daal dee am guddi gi mujj nag laataa ñu leen teg loxo ci la defkatu ñaawteef yi daal dee song moom dawalkatu oto bi miir bi nii mu dooraata ma jass bi encore ginaaw ginaaw waaw alhamdullilah jass bi dugul après dem ci gendarmerie def ko plainte quartier Samba dem bu zone de recasement melni nak nag wóoratul guddi gi barab bi lëndëm kourous lay daal dee def ndax ñaaki lampe ki di délégué de quartier bi ni ñàkkum karanga gi foko ko rek dal dina koy wess dañ ci jaay sàngara bi nga xamne dafa yomb 50 francs nga nan 100 nga nan 150 nga nan ba paré dañuy quinze te li gëna graw ci affaire moy xalé yi nga xamne 10 ans 12 ans 13 ans ñepp dañuy yoré ay da ngay gis saret buy daw ba deux heures matin trois heures matin moo tax fii garaaw ci quartier bi ñu daal dee taxawal ab comité de vigilance ci njiitalu délégué bi nag guddi gu jot mu daal dee ànd ak gone yi di wër koñ bi ngir saytu kaaraange gi nonga kamba bés rajo Futur Media tàggat yaram ñu dalal Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi laa fay la jaasal ñu daal di tàmbali ak ñaareel bi génn bu euh, équipe bu Teungueth FC ci euh, Ligue des champions africaine bi tey ji ci ngoon ñeenti waxtu lay doon ca Thiès war nañ faa daje ak waa Zamalek équipe boobee ma nga fekk baax ca réew Égypte. gannaaw tàggatu ko mujj gi ci waajal ñaari euh, équipe yi am na nu ndaje mu doxoon diggante seeni entraîneur ak taskatu xabaar yi foofa ca Thiès la yëfe xewe woon Cheikh Anta Diop moo nu fa teewaloon. jëm ci ñaareelu bëccëg bi ñuy amal Champions League bu Afrique Tëngéej FC ginnaaw jaloore ji ma defoon fële ci Tunis match bu jaar yoon ñii di waa Tëngéej ñoom nee nañ bëgguñoo ñàkk fii ci seen dëkk ba tax na kii di Youssouf Dabo di entraîneur bu Tëngéej FC ne nak yëf yi jom ak fulle moo koy mottali. léegi li ñu war a am mooy gëm suñu bopp à 100 pour cent gëm sa bopp à 100 pour cent assuré wu la victoire mais au moins dina la assuré génn ci match te doom am rëcc. Euh, comme ni ma ko waxee xale yi euh, ñoom ku si nekk individuellement war na tirer enseignement yi par rapport ak match bi nga xamante ni moom la ñu di passé pour que mu servir leen parce que match yi dafay tegloo te di uute. mais li am solo mooy match boo jàll rek nga am loo si jàngat surtout nga nekk ci compétition boo xamante ni nga si comme ñun niñ si nekkee bees. Zamalek d'Égypte ñoom benn poñ la am ci journée bii ñu génn waaye nee nañ fii ci réewum Sénégal bëgg nañoo dóor équipe bu Tëngéej bii waaye nag di entraîneur bi di Jem Pacheco nee na équipe bu bi mu gis équipe bu xarañ la te ay ndaw ñu mën fubal lañu. Muito bem organizada, nota-se que é bem treinada. équipe bu Tëngéej bi ma war a dajeel ay ndaw yu xarañ lañu équipe bu am organisation la football ak ñoom dina jafe seetaan naa leen liggéey des champions seetaan naa seen ñaari match championnat bu Sénégal kon nag dama leen di bàyyi xel bu baax équipe bu mag la waaye man mii de damaa ñëw pour gagner. bu ma képp ak moo Tëngéej stade cette phase de groupe. ñaari équipe yi entraîné nañ fii ci stade Lat Dior bu Thiès. Zamalek bu Égypte dina jàkkaarloo ak équipe bu Tëngéej bi nga xamante ne bi ñu leen gisee ñu amoon Pastef lañ ci entraînement yi. ñu fas yéene koo wane ci talaata bii Cheikh Anta Diop. boobule match nak des ko mën a déglu en direct ci radio Futur Média dina ci ànd ak Cheikh Anta Diop momé Youssouf Bodian ak suñu euh, consultant euh, Momar Thioune Thiès. ci walu phase de groupe yi jaraf xamna légui ñan la war a ci coupe CAF mu nga bokk ci pousser war na ci la lek wa Sfax ñoñu ay doomu Tunisie la ñu Bay yi nek ci euh, Salitas FC ak ña nga xam rek ku gagné ci match bi wara dox diggante étoile du Sahel bu Tunis ak ñi di wa Young. Buffalo euh, ci euh, les coupe de la confédération qui coupe d'Afrique bu ñu U20 yi ca euh, réew Hamnanu te football kon jëm si quart de finale gogou jongante nee programme bi alxames lay Tambali, Cameroun ak Ghana Noizoué, joué Burkina Faso, ak quoi Ouganda la ca des ko aljuma Maroc Tunisie ak République centrafricaine ou a laale ak quoi équipe Gambie Nous, d'ailleurs, di rek jeexal alaaji ak lu jëm si walu Ligue des champions bu euh, Europe Dans nous sobot ici euh, huitième de finale aller yi dina am heures fi ci RFM nu ni euh, équipe bu Atlético Madrid mooy ak Chelsea Edouard Mendy Lazio rom mo dé joué ak équipe bu Bayern de Munich bi nga xamni mom mo yoré raw gi kon lata mm. journal 13h gont nu nu directement mm. dixième quartier dixième. ndax FC Zamalek.

tey ñu leen di xamleel ak ndaw soo xam ne ni wàllum photographie di photo daf ko sopp lool xarañ ci bu baax a baax Ndumbe ci fan yi ñu génn rek jël na raaya concours bi nga xam ni waa ambassade bu Pays-Bas ñoom ñoo ko tëggoon doon ci waxtaane lépp lu jëm ci wàllu changement climatique Ndumbe ak photo lu yàgg la moom mi nga xam ni moom moo nekk ca Géejawaay bokk ci kuréel gii di ji hip hop Omar Mbow ndaw la ñu toogal foofu ca Géejawaay

mais euh, ñaan nit ñoo ko remporté man ak Assane dama jëloon photo ci environnement ay xale yu saxal garab ci benn projet bu ñu naan dundal waa Kinaan waa Guédiawaye hip hop ñoo ko defoon. ma jël photo bi postulé ko après par la suite ñu ambassade Pays-Bas ñoom ñoo ko mujj jël ne photo bi dafa rafet. en plus dafa conforté woon ak seen thème bi. maanaam nan la ñuy def ba protéger environnement bi. mu di ab natal bi nga xamante ni Ndumbe Ñang denc na ko fu wóor. sama image la man maa ko moom protéger naa ko. ku bëgg gis image boobu fan lay euh, mi ngi sama page Facebook. Ndumbe Ñang sama signature mi ngi si. sama signature Nduta Nduta photographe. photographie la. bi di xamle ne raaya bu ci am da koy gën a ñaaxaat rek mu dem ci kanam. xanaa di ñaaxaat sam bopp gën a jàngaat euh, ci wàllum photographie. Dumbe Ñang di xamle ne tey bu demee bay def photographie ji hip hop moo ji hip hop nag ab benn structure culture urbaine la bu nekk ca géejawaay. fii laa ko jàngee fii nii géejawaay. force Covid 19 di koppar yi nga xam ni moom la njiitu mi génne di ci jàppale ka massawu ñi di artistes yi ci wàllug mbas mi ba ca mujj di ñaari milliards ak genn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 buntu këram toogaanu ko di xaar bët seet bañu japp ko journal bi dollu ñu ci ne waxum téléphone gu police jotee ci le li lepp tambalé Assane Diouf mom bañu koy jëli dembu ci këram gee ci géeja waaye gaañi dajji buntam lu jëm ci mbirum Biram Souleye Diop ak compagnie libération né nañu li parc bi bëgg moy administrateur bu parti Pastef di Biram Souleye Diop moom ak dayru cham ñu mandat dépôt Patricia Mariam Galdo Abbas Fall Fatima Mbeng ak Bawar Diagne ñu contrôle judiciaire leen seeni dossier yépp journal bi né nañu ñonga ci loxoy doyen des ba tay ji ci la wara tambalé audition bi commission ad hoc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 ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm naka noonu yéen ñu doon teewlu yëpp xibaaru suba seeg RFM bokkoon na ci ne ay xibaar Clédor seen mi takk der yi xëy jëli sànq ca këram yóbbu euh, fa ñoom euh, mu des ñu topp ko ak yéen incha allah mbokk yi ba xam. nu enquête bi tëddeeg lu nu leen di toppee bokkoon na fekkoon na it ñu teg loxo euh, kii di Assane Diouf ak euh, ku ci mel ni Guy Marius Sagna njort gi mooy ni euh, dañuy ragal rek ñu amal yëngu ginnaaw ba nu àndee maase ñoom ak waa pastif ci ne li dal Ousmane Sonko du leneen lu may ab ndëgg sërëx bu njëkk nag njiitu réew mi président Macky Sall di ci yéeg yàb bi ci kanamu radio France International, ci gàttal xeebale na boppam lu ni mel jombale na boppam jëf ju ni suufee dara jotalewu ko kon mu ne ak moomee mbir di bu Ousmane Sonko àndoon nañ ci eh, ci tekk gi ñeel yooyu kàddu ci nasaraan eh, yu président Sall ak xaaj njógu jenn Euh, xibaar beneen mooy Sénégal tey lay jublu ci wàllu ñàkke gi mooy kon ndorte li ginnaaw bu 200000 doses yegsee mu des euh, yeneen lu ñuy am yaakaar euh, tey ji ca kanam tuuti ca ministère de la santé dina fa am loo xamante ni am ndaje la bu ñeel kilifa yi gi màndar gaal ndorteelu ñàkke gi ci it ku ci mel ni ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak kilifa yeneen yu Sénégal dinañu kon tàllal yoxo yi incha allah ñu ñàkk leen ngir rek wane yoon wi. Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ci wàllu digital gi soxna Yacine Pouy ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn lu jàmm ca kanam tuuti ñu ànd ak yéen seen jotaay gi